mu daal di mel ni carment dafa exister incroyable mais vrai salaamaaleykum sa mbokk internautes yi j'espère que ni ngi si jàmm bu baax bon li leen ñaan ngeen aimé commenté partagé ngeen abonné wu tamit pour suñu publier rek ngeen teel ci mën jot ñun la ba tey waa Cimka bu bees ñoo ñëwaat suñuy waxtaan tey nag waa Wally Ballago Seck la ñuy kar donc bu ñëwee tuuti ci ginnaaw rek waa Wally Seck defoon na fi interview daal di expliqué ne dañ ko humilier woon kii nii di Akon waykat bu mag bi daf ko humilier woon donc daf ko proposé woon askan ñu def featuring wala mu boole ak ay nit donc ñu bàyyi leen ngeen xool vidéo bi après ñu indiwaat waxtaan bi. ay ñu ci bëri di dem seeti Akon ma gis ñenn ñi bu ñu ñëwee dañuy wax seen soxla mu yëkkati li leen war a jox jox leen mm-hmm. bi may ñëw yàlla dimbali na ma maa ngi gaar sama oto bu baax. Mm-hmm. sol lu baax. Mm-hmm. kañ parfum bu baax. sama wecc bi ma yàlla jox. gannaaw ku nekk alal jàmbu caag féetale ginnaaw. Hmm. ma téye sama wéccin ñëw seet si ko. ma ne ko man de waykat Sénégal laa mu ne ma xam naa la. Hmm. ma ne ko waaw man damaa bëgg rek man bëgguma xaalis damaa bëgg rek nga link ma ak kenn koo xamante ni suma juyoo ak moom wala yow wala kenn koo xamante ni wala nga ubbil ma bunt yi pour à que li Sénégalais di rêvé. Hmm. ma defal leen ko parce que am naa potentialité te xam naa ni mën naa ko. bien sûr. Mhm. m'a répondu. Mhm. moom Akon. ah link war a liggéey ba ci kanam. ok. c'est qui a fait de Wally ce qu'il est non. ay kon moo tax man. moo la sonj daal succès yow laa moo ma sonj. ba ma génn bi ma génnee foofu rajo son. Mhm. damaa tuur ci parking bi. dama ne tey laay mujjee demandé sénégalais. service service boo xamante ni ci côté musique te ay kon mhm. day yàgg rek. waaye dina ma gis ci benn level. donc waxee xool donc. ñu gisoon ni que vidéo bi euh, expliqué na ci vraiment li ko naqari envers Akon suñu waykat bu mag bi léegi nag ñu toogaat benn moment ñu gisaat Wally def vidéo ak Akon donc ñu jàppoon ni jàmm ñëw na ñu wan leen vidéo bi pare une bombe atomique bombe Sénégal dafa bari cat noppi leen Yo, Baba. Baba, how you doing? Yeah. Yo. Hell yeah, man. One Africa, one family. Still good out here, my man. Upswing daddy. You love Dakar? Favorite boy. Dakar, dapat neex de. Dakar? Dakar, Dakar, Dakar's home, man. Yeah. <laughs> Shit. We're good. Did you not know this? Ndeke, suñu waykat bi lee, oui pour pardonner. mais non pour oublier la ñëw ak ñun donc Akon daf ko proposer plus de 70 millions pour de featuring ak moom mais suñu waykat bi dafa bañ donc ce qui veut dire Wally Seck nanguwul way ak waykat bii di Akon ci ay at